musa Cheikh Musa sa salaatu ñu koy sallallahu muhammad hmm. malam lim bi ma ci joxe ne cinq mille cinq cent cinquante cinq hmm. maanaam dafa am loo xam tere nalaw nga ragal ko hmm. ci wàllu lu mën a doon ci say nooni tay ji bo bo gennon wala bu genné mhm. nga am ci jafé jafé mhm. mu wër la ni yang ko takk ci soxol xol bu no ko fajal sa bop mhm. nga tok nga def sallallahu ala muhammadin 5555 mille cinq cent da ngay jiital def 500 def cinquante def 5 bo paré rek ci jamono ji nga paré nga ni yalla li ma def ci salatu ala nabi def naa ko addiyee yonente sallallahu alaihi wasallam li la téré nelaw nga ñaan sonu borom ni ko dama bëgg nga dox sama digganteeg loolu. Mm-hmm. suñu borom dana la ci mosal. bu fekkee nag da bëgg leneen ñëw ci ay xéwal. Mm-hmm. moo xam da ngay wut liggéey. Mm-hmm. wala ngay wut soxna. wala ngay wut borom kër. wala ngay wut wërsëg. wala lépp loo xamante ne nii bëgg nga ko bëgg cee jot tam tëlaa nelaw. nga def cinq mille cinq cent cinquante cinq. boo paree rek def addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan loola. sunu borom dana la ko fajal. incha allah maanaam 5555. sallallahu ala muhammadin.